asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa mbokki jullit mbokki taalibe yi ñu fas yéene leen a yëgal ne incha allah tabaaraka wa ci gàmm gi. دانا نوبي بيت رسول نيك بو تيد بيغا خامتي في لا رسول الله صلى الله عليه وسلم غنسي وان احمد بام خادم رسول ان شاء الله تبارك وتعالى دان كو اوبي ديماش لوكو تالي سي فكي وقتوك بن با التنا سي صبح ان شاء الله فاسنا نو يينه ياندو فنان اك موم fasiyene ci lay bi re mbokki talibi yep inshallah kep ko xamanteni dang fi ñew rek ngir siaré fasiyene wormal barbe bu baaxa baaxa baax ak na mbokki talibi yo xamanteni ño fi nek fasiyene ànd ak nit ñi ci liggéey bi rawatina man mii nga xamante ni maa fi nekk incha allah fas na noo yéene euh, bégal mbokki taal bi yëpp képp koo xamante ni egg si nga fi laa incha allah nga siyaare siyaare bi nga bëgg ci jàmm ak salaam te ñaan su borom suñu borom bi subhanahu wa taala lu fi waaye ñaan rek suñu borom nangul la ko di barakati Seexna Seex Ahmadu Bamba Xaadimu Rasuul ñu ngi cee wokki woo mbokki jullit yëpp mbokki taal bi yëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu jërëjëfati Seex Ahmadu Bamba Xaadimu Rasuul